jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu euh, di rafetlu seen ànd ak rajo réew Rewmi FM 97.5 euh, ñu leen di nuyu bu baax a baax seen émission pencum réew mi muy émission boo xamante ni dafay am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck aadama jàll moo nekk ci wàllu technique bi. mbokk yi tey ñu dellu am mbégte fas yéene dal docteur Macoumba Diouf. moom nag euh, mooy directeur général bu euh, horticulture ba pare tamit nekk euh, maire bu commune bu Lat Mbengue monsieur le maire wala directeur ñoo ngi lay nuyu. waaw sëñ Abdou Khadre maa ngi lay fay di la dalal jàmm di bëgg ci sa émission ak ci liggéey bu am solo bi ngay def di bëgg ci rajo Rewmi FM. waaye di nuyu seen auditrice maanaam suñu mbokk sénégalais yu jigéen yi leen di déglu ak auditeur euh, yi leen di déglu nekk fii ci réew mi waaye nekk aussi ci diaspora bi maanaam ci bitim euh, réew di leen félicité bu baax ci liggéey bi di leen dalal jàmm ci euh, waxtaan bi nga xam ne am na ñu ne sequ ko ak yéen te mu jëm ci lu soxal réew. jërëjëf euh, docteur Macoumba Diouf euh, ñu fàttali ne yow yaay euh, directeur général bu culture horticulture danañu ñëw waxtaan ci li nga xamante ni mooy mbayum dër ndax horticulture bu ñu ko tuddee mooy mbayum dër am na sax ñu koy wax mbayum noor ndax dafa am gox yoo xamante ni rek ñoom noor ak nawet ñoo ngi koy bay aussi. Euh, ndax war nañ si waxtaan lu yaatoo yaatu na tabaski gi nga xamante ni moom mooy moom mooy door waaye fi ñuy njëkkee rek moom mooy euh, actualité euh, dañu gis ne lu soxal IGE ay rapport yu baree baree bari rapport 2016 ba 2019 dañu gis inspection générale d'État daal di koy génne te inspection général d'État mu nekk benn corps de contrôle boo xamante ni tey am na jëmm benn xeetu am jëmm boo xam ne fu ko neex ci biir réew mi mën na faa dugg lëñbët fa euh, ñu gis ne génn na ay rapport jox xar bi baaraamu tuuma ñenn ñoo xamante ni tey euh, dañu ànd ak président Macky Sall ci ay ministères ci ak ay agences euh, rapport yooyu lan moo ci sa xalaat. jërëjëf sëñ Abdou Khadre sama xalaat mooy d'abord. lépp ak rafetlu la ci rapport yooyu mais fi ma ciy njëkkee mooy d'abord suñu sart réew mi tëral corps de control yi corps de contrôle mooy këru liggéeyukaay yi nga xam ne seen liggéey mooy càmbaru liggéeyu ñi ñu dénk liggéey ak alalu askan wi loolu mooy corps de contrôle kon xam nga réew moomu macha allah tegu na wala boog pare na ci dox ci yoon am na réew yu mu amul li ma bëgg wax rek mooy ay la yéwén ay matuwaay am na pour que nit ñi doxal dëgg doxal yoon ndax kër yañ jiite mooy kër yañ yoral askan wi mu ñuy wax la public am na sart yu leen di doxal pour ñu def transparence def lu ñuy wax bon gouvernance maanaam yor yoral askan wi yorin bu mucc ayib loolu am na ca kër yooya kër yi ñu càmbar noonu ak ministère yi loola am na fa ministère boo ci dugg am na ay matuwaay yu tëral na mu war a doxee ba boromam kenn du am lu mu ko wax te teewul ñu def ay corps de contrôle kon xanaa ki def loolu xam na ni doomu aadama dafa matadi te lu mat ak lu jub nekkul fépp la am mu créé kon ay corps de contrôle yoo xam ne bu ñee liggéey ba pare moom liggéey mooy càmbar li ñu liggéey ndax dëppoo naa ak yoon wala déet kon man lu lay njëkk rafetlu matuwaay ba mu xam ne am na ci suñu réew ñaareel bi li may rafetlu mooy. président Macky Sall quand même bu kenn fàttani ni bi mu ñëwee ba léegi ci loolu lay dox loolu la santaane fan la ko njëkkee mooy plan Sénégal émergent si Abdou Khadre yoo xam nga ne bu doon développement suqaliku bu réew mi suqaliku bu jolli sax laa ci teg mooy émergence bu doon ab dëpp dëkk la yoon wala bu doon garab la bokk ci gàttal ñeenti bànqaas yu mag la am non ñett benn bi ci bànqaas yu mag yi bon gouvernance la mooy maanaam saytuwin yorin bu sell bu leer bu alalu askan bi kon kii wax loolu waaye waay te 2000 te kii nag PSE nag depuis 2014 la commencé 2013 sax la ko la ko maanaam at ginnaaw ba mu jotee réew mi rek la ko la ko nafar moom plan Sénégal émergent neel pour wane ne bëgg na suqaliku am mooy transformation structurelle de l'économie ak croissance loolu war na am waaye fàttali ko ne ne bu bonne gouvernance amul croissance boo indi ñaari nit walla ñetti nit wala nit ñu limu yu tuuti aaki ah, moo kon euh, loolu lu ñu war a rafetlu la muy ñaar ñetteel bi mooy quand même moom moo santaane. rapport yi génn moom président Macky Sall ndax wóor na ma xaw ma ne xaw ma yow de ndax yow xaw ma xaw ma ndax yow de sëñ Abdou ak sa auditeurs yi am na ku ci waa yëgal mais man de yëgu ma gëm naa ne bu dee am na kenn ku yëgoon ne rapport yi pare na ak kenn ku ñuy wax ne pare nañ ko ndax ñu indi ko wala déet wala ñu xaar bu dee am na kenn ci réew mi président Macky Sall kon moom moo yëgoon ginnaaw siiwal bi ne rapport yi pare na moom la doon cooba coobareem pour ñu siiwal rapport yi. kon loolu it nekk lu nit mën a rafetlu. Uh-huh. fa may jeexale nag mooy la mu wax mooy bokk na ci bonne gouvernance matuwaay yi nguur gi tëral boo dee kilifa nga respecté ko. ña ko ca respecté wul ndax jàpp naa ne am na ñu ko ca respecté wul waxin la ndax bu ko ñëpp respecté woon du wax ne fii ak délai sàngam bëgg naa ñëpp def déclaration. d'accord kon bu amee ñu ko respecté wul. d'abord man benn man duma ma rafetlu loolu. d'accord parce que responsabilité bu toll boo ko yoree. ci réew. waroo xaar ñu lay fàttali. d'accord loolu. kon kon man vraiment damay rafetlu li président def di jàpp na it ak fàttali la rek. d'accord ndax ña ëpp ca ñoom it. sëñ Abdou Khadre def nañ ko ma loolu laa jàpp. mais exception nag moom mooy confirmer règle mais jàpp naa ña ëpp ci ñoom. def nañ ko parce que sama xel mayu ma mukk ni. ña ëpp defaguñ ko sama xel mayu ma loolu. d' accord euh, docteur Macoumba euh, danañ ñëw ci déclaration patrimoine bi mais man li ma lay laaj. Ah. mooy ci rapport yi nga xam ne IGE génne na ko ak yeneen ay corps de contrôle yoo xam ne day jox xar bi baaraamu tuuma épinglé. ñoo xamante ni tey ñu ànd ak président Macky Sall lañ te dañuy faral di gis ne dara du leen ci fekk yow docteur Macoumba xam nga ne yow doon la woon neex du la neex timit say mbokk rapport génnoon ñu ne docteur ma kat def na nangam ci liñ ko dénkoon loolu du la neex léegi euh, li may laaj mooy rapport yooyu génn joxat bi baaraamatu ma ñu jege Macky Sall lan moo tax dara du leen ci fekk. loolu si Abdou Khadre wax ju rëy la wàccee naa la ko yow loolu man wax jooju mënuma koo porter naa leer lu tax d'abord damay njëkk a corriger rapport yi ñëwul épinglé ñëwul épinglé épinglé ci tubaab mooy. jàpp loxo ci biir. waaw waaw Euh, non dama ne ñëwul jàpp ñi ànd ak Macky Sall rek xam nga yow loolu nga wax. Uh-huh. loolu laa la bëgg a foofu laa bëgg a jubbanti. Hmm. ci sama xalaatu bopp. Ah, d'accord neel rek ay sénégalais. Mm-hmm. yu ñu jox ay responsabilité mm-hmm. je pré man loolu moo ma gënal. Mm-hmm. ma waxee xam nga tax wax loolu. mooy man wóoruma ndax parce que tiimu ma leen ñoom ñëpp. am na ay njiit yu jëne ndax Sénégal. du ñi ànd ak Macky Sall rek ñoo fi yor cër nag. déedéet am na ñeneen ñu àndul ak moom te yor cër surtout rawatina euh, façon responsabilité yi yi ñuy jiiñ mais mais daal ci gàttal dañ wax rek ni sénégalais. responsable yi nga xam ne. rapport yi épinglé nañ leen. nañu leen càmbar man ci loo laa ànd. yow ci loo ànd man li ma ànd mooy. waaw yoon am na ci réew mi. Uh-huh. yoon. am na ci réew mi. loo bëgg yoon def. li ma bëgg yoon def mooy. mu dëggal. wala mu toxal. li rapport yi wax parce que attention nag euh, si Abdou Khadre attention. te sénégalais yaa ngi may déglu heureusement bari ngeen i dama ne corps de contrôle jiiñ na la tekkiwul ne. yaa def fan la ñuy xamee yaa defal ah, ma maa ngi ñëw fa laa ñëw dinaa ci yegg si dinaa may ma rek mais dama bëgg d'abord mu leer ci xelu Sénégalais yëpp mooy ñoom seen càmbar teg ko ci këyit yañ la laaj ak yañ fa fekk lañ jàng ak ñoom waa IGE dañuy njort ne fii moom waroon nga ko defee nii defeewoo ko nii yemu ci buñ la jiiñee mbir sax léegi dinañ la may. nga bind tontu dëggal wala nga weddi indi firnde ca lañ la jiiñ ñoom maanaam bu amee rapport yu mel noonu njiiñ bu amee ma lay may nga tontu loolu yëpp nag day nekk ci dossier bi kon li may leeral Sénégalais yi jaar ko ci sa antenne bi nga xam ne ñëpp a ngi koy déglu mooy nekkul loxo ci biir poos ku doon sàcc di tafu nga ne niib loxo bi du loolu de. Mm-hmm. déedéet. Mm-hmm. déedéet du loolu dañoo dañoo dañoo dañoo njort ne. Mm-hmm. fot nañu. am na ku liggéeyam doon wéral wala toxal kooku lay interpellé man bien sûr duma interpellé président président wàcc na dégg nga ki la wax ne. Hmm? indi leen ma rapport yi. mu indi su ma juumul rapport yi dem na dans le domaine public léegi. maanaam siiwal nañ leen. mais ko fee déggoon mu ne rapport yoo moo si teg cooñ. non loolu moom man mënuma caa wax parce que dégg du du loolu laa du déggin boobu laa am. ci ci wax ca la mu wax. comme bokkuma yow déggin ca loola kon loolu du ma ci sori li ma lay wax ci liñ liñ jàkkoor ni léeg boo toogaatee ak moom moom président nga ne président dañu bëggoon nga leeral. discours bi nga fi waxoon xëy na dina la ko leeral. léegi loolu man man ci li ma ñëw man li ma bëgg mooy président wàcc na. ndax wóor ma moo laaj rapport yi jot na ko la ci nekk dégg nga ne mu ngi commencé siiw te kanam la jëm am na ku liggéeyam dool càmbar loolu ba wéral ko wala mu toxal ko bu ko toxalee ñu seetal boromam wecc te loolu ñu ji ñëpp am nañ intere ci loolu bu ko bu ko dëggalee daan fekk ko ca loolay ñu ñu ñu ñu ñu dàmp askan wi te keneen dootu ko def man ci loolu laa ànd kooku mu ngi tudd justice justice nag ci situation bu mel nii su dee sama allowa naxuma président moo ko mën a saisir maanaam moom mooy seet mbir yi nga xam ne moom jàpp na ni lii moom élément élément mooy ay xibaar ak information yu yu wér pas yu wér en tout cas yu bari yu doy am na ci pour ma ne procureur wala ma ne keneen càmbaral ma lii. kon man li may santa li may li may pas santaane li may rafetlu li may yéene li ma xalaat mooy te jàpp naa ne moom la président di def mooy ñu topp mbir mi nag ba mu sës. ba mu sës waaw mu dem ci yoon. Mhm. yoon leeral. ku ku ku ñu ji yoon te ñu tudd la te mu doon rek njort wala lu ñu bind ci téere yi rek ñu setal la ndax nag. wax nga ko léegi. ni nit ñi di am ay njaboot. am ay famille. am ay xarit eh, ñu setal la quand même nit ñi xam ne defoo dara. bu dee bu dee loo def mais yoon. dal sa kaw dal sa kaw. d'accord waaw ah, donc ñun loolu mooy suñu euh, xalaat. jërëjëf euh, docteur euh, Macoumba Diouf léegi nag ñu ñëw ci li nga xam ne mooy déclaration patrimoine ndax xam nga docteur Macoumba am na loo xam ne yow yaa ma ko gën a xam ka ne réew dafay tënku ci ay loi ah. dafa am benn loi boo xam ne dañ ko fi indi ndax président Macky Sall tamit lu si man di am bi mu fi indee euh, OFNAC euh, assemblée nationale député yëpp dañ ko voté à l'unanimité euh, rafetlu ko léegi loi bi nga xamante ni tey mooy jëm ci déclaration patrimoine maanaam wax sa moomeel loi boobu dafa wax ne bu ñu la dénkee alalu réew mi lu toll ci benn milliard wala lu ko ëpp may na la fii ak ñetti weer da nga war a wax sa moomeel sooy dugg ak sooy génn euh, dañu gis nag ne àllarba bii passé si conseil des ministres président Macky Sall dafa wax ministre yi nga xamante ni defaguñ ko ngir ñu def ko fii ak quarante cinq jours euh, lan moo ci sa xalaat ci commentaire yi ndax gis nañu booba léegi nii actualité la. bon man li ci sama xalaat jujoon naa ko léegi sama tontu bu njëkk mooy d'abord dama ko rafetlu euh, te jàpp ne loolu laa jàpp. ña ëpp ca nit ña euh, ci kilifa yi mu soxal loolu laa jàpp mooy xanaa def nañu ko xanaa loolu laa jàpp. et que et que bu ko defoon nag président du ko wax nag itam nag. non ah. ay wolof la ñuy wax waxuñu chinois. waxuñu indu la ñuy wax. dama ne. Mhm. damaa jàpp ne. xanaa mënoo fexe nag ba ne ma nag moo kumba amoo droit jàpp dara amoo droit am xalaat. dama damaa jàpp loolu laa jàpp mooy ni ña ëpp ci ay wolof laay wax ca ñoom defoon nañu ko loolu mooy exception moo tax président wax loolu laa njort njort bu wér nag ndax ni ma xamee euh, république ak responsable yu toll noonu mënta nekk ne majorité ba ñoo ko defagul loolu laa jàpp kon euh, li ma bëggoon a wax foofu li tax wax loolu mooy dama jàpp ne fàttali la bu mënoon a ñàkk nag ci ñu néew ñi ma jàpp ne dañoo néew ñu ko defakul ma jàpp ne loolu nag wax dëgg yàlla mën naa ñàkk te xanaa fa lay yem ndax ci responsabilité dafa kawe ba nga xam ne nekkul lu ñuy war di mën di wax nit ñaari yoon man loolu mooy sama xalaat waaye loolu mooy pour ñu ñu mu daal ci président nag macha allah li ma ubbee sama kàddu rek. mooy mbegte ak xel mu gën a dal mës ta ñàkk a dal ci moom dama ko mësa a wóolu mës a doyloo moom président Macky Sall ci ay jëfam ak i doxalinam yàlla xam na ko te te ñu ëpp ci Sénégalais yi li ma gëm man ba fii ma toog mooy loolu la jàpp ci moom. élection yàggu fee passé ñu naan tey élection ba ngoon dina demee nii téeméer boo jël juróom-benn fukki ne ko yow yow. d'accord euh, léegi maa ngi rek maa ngi ñëw rek donc kon jaajëf fa président Macky Sall ndax kenn waxul ne. nañu def déclaration dégloo ñu ne ab ministre dégloo ñu ne ab opposition dégg ñu ne société civile moo ko laaj dégloo kenn dégloo kenn moom moo ne non seulement def leen ko waaye may naa leen délai kon jërëjëf président donc man maa ngi def loolu bu baax a baax a baax di wax ni loolu miinal nañu ko mais en tout cas kontaanati naa ci taxawaay bu mel noonu ndax day wane ne li mu mës a wax mës a indi ay kuréel ak i bërëb pour liggéeyukaay ak ay texte ay loi yu jëmmal. gëm bi mu gëm ne patri bi mooy askan bi moo jiitu parti moom wala coalition am damaa gëm ne chaque jour mu wane lu dëgg lool. moo tax man ma kontaan. ci matuwaay boobu nga xam ne président jël ko léegi euh, docteur Macoumba Diouf euh, maire bu ngi xam nga man euh, man boo xoolee sax damay naw ñi nga xam ne ay maire lañ ndax damay jàpp ne yow aw askan ñoo jël jox leen seen kàddu mais Macoumba il faut am loo xamante ni ñu taxaw ñu waxtaanee ko. ndax loi la sànq nee nga euh, en tout cas minorité bi peut-être ñoo ko deful yow ci li nga jàpp. Euh, même bu doon kenn benn ministre wala ñaari ministre rek. du lu jaadu léegi ah. léegi violation loi boobu xam nga loi euh, ñépp la tiim yow waroo violer loi. yow ma docteur ma kumba waroo violer loi. Ah. man tamit waruma violer loi. Ah. képp ko violer loi yoon dafa war a dal sa kaw. est-ce que loi ñoom dañu war a xaar ba président Macky Sall di leen ko fàttali. da ngaa bëgg ñu dindi fi loi. dafa mel ni nga bëgg. mais waruñoo xaar dama ne. ba àdduna nekkee àdduna. ba léegi. sunu borom sax. àjjanaam gee. ak safaraam sële yàlla nañu ump. ay sart. loi ci waxin. la tëral pour régler ku fay dugg. kon fexeel nag ba Abdou Khadre loi ñàkk ci réew mi nga bëgg ñëpp jub. mante ne. ndax loi liggéeyam mooy. ñëpp dañoo war a jub. loi ne ku jubul nag. ma jubbanti la ci sa sago ci sa ci ci lu ci lu weetu ci lu weesu sa teeyu bakkan loolu la loi di jëriñ mooy force di nga di nga ma topp force di nga def yoon loolu la loi di jëriñ kon nag mu am ñu ko deful mais loolu fi la ko fekk àddina tëddee noonu waaye wax naa la leen nee naa la man rafetlu wu ma ko nee naa la jaaduwul. foofu laa mën a yem te doo ko def. non loolu man du ma ko def. d'accord kon jubóo nañ. dégg nga de. d'accord jubóo nañ man rafetlu ma loolu te ànduma ci. d'accord mais nag lu tax mu am ba ma ko laajee damay jàpp ne yow mi laa war a delloo ab laaj mooy lu tax nit di dënk. mooy lu tax nit di jàdd yoon tontu ci yow. man mënu ma cee tontu. donc donc euh, euh, li xew daal mooy. am na jaaduwul <coughs> nga jégal ma rafetul. d'accord seeni borom la wax ci loola ay la yoon man mii di wax ak yow. jàng naa cadre la et mais xaw ma lépp xaw ma lu yoon wax ci ñi def loolu mais président moom xam na ko te xam naa ne moom mi ko fàttali nit ñi moom xam na yan matuwaay la war a jël. Ah. te gëm naa ni dina ko jël. kon daal man vraiment lii laa mën a wax ci tontu ci tomb boobu nga wax. Euh, jërë ngeen jëf euh, mbokk yi kon yéen a ngi déglu rajo Rewmi FM 97 point cinq Euh, seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16 heure ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck mbokk yi tey ñu euh, dalal nag euh, docteur Macoumba Diouf mi nga xamante ni moom mooy maire bu laat Latmingué ba pare tamit nekk directeur général bu horticulture. léegi nag directeur général horticulture mbayum dër ndax mën nga expliquer tuuti ñi nga xamante ni tey ñoo ñuy déglu. Euh, horticulture mbayum dër dëgg-dëgg moom mooy lan boo ñu doon expliquer. jërëjëf si Abdou Khadir euh, horticulture wax nga ko léegi ñu ngi koy waxee mbayum dër ñii naan ko mbayum noor waaye dama jàpp ne bu doon mbir it dañ ko war a ngéntewaat dañ ko war a changer tour bi ndax ñaar yëpp amu ci benn bu dëppook moom ndax mbayum waxtu wu ne la lan mooy horticulture pour nga xam ne mbéyum waxtu wu ne la mooy mbéyum lëjum soble pomme de terre ak yu ni mel mooy mbéyum fruit yu mel ni mangoog banaana ak papaya ak yu yooyu. lépp ci la bokk. mooy mbéyum fleur fleuriste yi nga gis nii ñu nekk ci yenn place yi. Hmm. di jaay euh, fleurs yi ak. gàncax yu taar yooyu ci fu ñoom ci horticulture lañ ne. li ñuy wax plante ornementale mooy mooy gàncax yu taaru yooyu nga xam ne du am sax tótóor. du jur mais seen melokaan dafa taaru ba nga xam ne dañ koy defal ci bërëb pour taaral bërëb ba loolu li ñuy wax plante ornementale ci tubaab. ñeenti pàcc yooyu mooy horticulture. d'accord loolu li tax ma ne mbéyum waxtu ne la est-ce que am nga weer ci fukki weer yi ak ñaar. boo dul gis légume ci marché Sénégal amul xanaa da nga naan légume bii moo gën a bari ci diir bi que mais at mépp douze mois sur douze premier janvier ba 31 décembre ay légume dañuy ñor ci réew mi loolu li mu tekki mooy nawet noor bu sedd bi noor bu tàng bi yépp am na lëjum yu nam d'accord kon mbéyum waxtu wu ne la. d'accord léegi euh, docteur Macoumba Diouf ngir ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu euh, yow yaa jiite euh, secteur bi nga xamante ni tey ñooy bay ay lëjum ak yu si aju. Ah. waaw mais nag liñ ciy waxtaanee mooy li nga xam ne moo ci gën a fës naam lépp sax mu am njariñ muy carotte bi supame si pomme de terre bi ak soble si. Euh, yii ma la tuddal nii bi ban politique la ci Sénégal def. jërëjëf politique bi mu ci def mooy bu yéeme rek euh, bu yéeme bu mucc ayib li ko waral nag mooy yow mii yaa ko wax foogu ma ne sëñ Abdou Khadre juróom-ñaari at juróom-ñetti at ci ginnaaw 2012 wala 2011 foogu ma ne bu doon cere nekkoon tey jii foogu ma ne yow di nga posé question bi man fooguma ma ko man gëwuma loolu man fi ma ko teg mooy. wóor na ma ne melokaanu horticulture tey par rapport ak avant moo tax affaire horticulture soxla ba nga ne ma tey 17 juillet 2020 Sénégal moomoon boppam 1960 am na lu tax nga laaj ma loolu. te wóor na ma ne du du ñaaw. du tardé bu mu tardé. ci gàttal jéego yu horticulture def yu mësta def. yu kenn yaakaar woon ne dina ko def moo tax laaj ma ko man boog mooy sama xalaat. mooy yan jéego. très bien mooy li nga laaj. yan jéego. 2012 Abdou Khadre mën nga laaj commerçant bu mag bu la gën a jege. bu la neex wala nga dem ci ministère yi pomme de terre boo xéwloo woon fii Sénégal bitim réew la jóge dañ ko doon importe pomme de terre léegi nag léegi juróom-ñeenti weer ci fukk ak ñaar. pomme de terre boo xéwloo. fii la ñore. ci waaw ci valeur. Uh-huh. damay bàyyi nit ñi calculer ko ñu ngi ci fi mu nekk nii daaw ñu woon ci cent cinquante six mille tonnes mooy téeméeri junniy tonnes. ak juróom ci réew mi yëpp fii lay ñoree ci dëkk bi. ji ci en cent cinquante six mille tonnes. Uh-huh. téeméeri junniy ak juróom fukki junniy tonnes ak juróom benn daaw. Uh-huh. ñor la nañ ko ren xayma bi daa yeggagul moo tax. waaye wóor na ma ne dina toll noonu wala mu jege ko. léegi de jëlal kilo bi deux cent rek loolu mooy euh, million ci ay kilo ak juróomi téeméeri ak juróom benn fukki junni kilo nga ful ko bu nekk ñeent fukki dërëm milliards yu bëree bëri la yu mu dugal ci réew mi attention sénégal yi seddoo ko diggante ki bay tool bi surga bi transporteur bi commerçant de gros mooy grossiste bi koy jëlee foofu indi ko fii marché Thiaroye wala Castor détaillant bi soxna si nga xam ne derkale fële la dëkk day ñëw jënd def taabalam di jaay waa koñ ba ci waxin rek pour mu neex a dégg ñoo ñëpp ñoo seddoo milliards yooyu par rapport ak milliards yi doon dem bitim réew di ko ñu koy importer nga xam ne béykatu France Espagne Portugal ak feneen moo ko doon jël dugal ko ci poosam. mais li nga wax nii du pomme de terre maa ngi ñëw dama laa bëgg a woon rek. loolu pomme de terre neuf mois sur douze nga jël soble juróom-ñetti weer moom naam importation bi production ci Sénégal bi dooroon na avant président waaye ay ñetti weer ak yooyu lañ doon am. léegi ñaata weer. léegi ñu ngi ci juróom-ñetti weer yow nga xam ne du ñu jëggaane bi fenn soble dama laa bëgg léegi ñuy wax affaire soble yow foog nga ne Sénégalais yi ni ñu ni ñu mel dañ leen tëj fii Sénégal di leen xool. wala di leen forcer soble bu bon ba juróom-ñetti weer. yow yow Abdou Khadre ak ni nga xam ne ab Sénégalais ni mel. d'accord léegi léegi Macoumba euh, yan garantie moom ngay wax ak yan leeral ka soble bii ngay wax nii ak pomme de terre bii ngay wax nii ak carotte bi am na qualité maanaam bëri gi moom ci réew mi li fi ñoree moom ñëpp xam nañ ko Sénégalais yëpp xam nañ ne pomme de terre beeg soble si moom ma ngi buuj. mais qualité bi nag léegi yan assurance ak yan leeral nga ñu mën a jox ni am na qualité. assurance bi mooy seede sa soxna yow Abdou Khadre bu dee am nga soxna. wala soxna ya nga dëkkal. ak auditeurs yi ma di déglu. ñu ngi tey ci bëccëg xëy nañ marché suba dañ xëy marché. pomme de bi ñu fay gis luñ ci xalaat nu mu mel ñoom bu ñu ma tontoo nga ñëwaat fi ñu def beneen émission. mais man impact laa tontu. ñu ngi koy gis mu ngi ci marché bi moo nekk ci marché bi maanaam producteur bi ci marché bi tey nii bi ngeen nar a tabaskee wala boog ci gàttal depuis février ba dépassé communautaire bu fu waay xewloo fii la ñoree maa ko wax ci réew mi ci réew mi ah man waaw lay tontu léegi yow mi ci xewlu tontu auditeurs yi nañ tontu après nga ubbi sa antenne bi malheureusement euh, xat-xatu jamono tax na ba mu ñu ko mën a def est-ce que yóbbu nga say saako président Macky saal moom demu si xewlu. non président Macky Sall daa moom xam nga ne consommé sénégalais moom la gëm. d'accord léegi pomme de terre fii lay xew. léegi est-ce que yen atteindre ngeen production bi ci gàttal. Euh, production bi ñaari xeetu mbéy yooyu. Mhm. am naa li nga bugg wax mooy autosuffisance. Mhm. non waxuma autosuffisance maanaam tey. par exemple tey Sénégal comme ni nga ko waxee sànq que jëggaani euh, soble si wala. Euh, pomme de terre bi ah. dama ne loolu Sénégal ndax bàyyi na ko jëggaani. bàyyeegu ko. kañ na koy bàyyi. Euh, jàpp naa ne du paaseeti at ak genn wàll bu bëri bu bëri ñaari at. Sénégal bàyyi ko. loolu laa gëm. foo ko teg. très fi mu ko teg mooy. li ñu ñor ci soble tey. na nga ko déglu bu baax. si Abdou Khadre ak auditeurs yi ëpp na suñu soxla. waaw li ñëw ci pomme de terre tey. ëpp na li ñuy dundee ci so ci pomme de terre par at. ñu ngi dundee par weer sauf weeru tabaski weer wu nekk sept mille cinq cent tonnes juróom-ñaari junniy tonnes ak juróomi téeméeri tonnes moom la ñuy xéwloo par weer ci pomme de terre weer weeru tabaski nga xam day nekk si juróom-ñetti junniy tonnes kon ñun quatre-vingt-dix mille tonnes juróom-ñeent fukki junniy tonnes par at lañ soxla ñu ko amee mu daj at mi. d'accord kon boo ci soxlaa te boo ci ñorlee téeméeri junniy tonnes ak juróom fukki junniy tonnes kon passé nga sa soxla. même chose ci soble soble ñetti téeméeri junniy lañ ci soxla par at trois cent mille que vingt cinq mille tonnes par weer la mhm. boo ci ñorlee cent quarante mille kon passé nga sa soxla cent quarante mille tonnes tegu na ci la nga soxla woon. kon nga war maa laaj kon lu tax. ñuy des di jëggaani ñaar ba ñetti weer ci soble ak pomme de terre foofu laa teg tontu bi ma la tontu mooy ñàkkoon bërëbu dencukaay yu doy. Hmm. ñu koy wax ñu koy wax chambre froide. ba léegi dañ ko da ngeen ñàkk. waaw ne. Hmm. li tax infrastructure de conservation. waaw ba léegi ni docteur ma Diouf da dangeen a am problème. ci infrastructure. de conservation boo ma dégloo rek Abdou Khadre nga dégg général bi nag. waaw mais man ci samay xibaar ak samay information waaw waaw bo bo boo ma dégloo di nga dégg dara tax ma ne na woon. Mhm. dañoo wax léegi nga wax ma foo ko teg. Mhm. ma am diir bu ma la jox. Mhm. foofu laa ko teg. mais balaa ma ciy xuus dama la bëgg a xamal fàttali loo xamoon mooy gis nga infrastructure yooyu maanaam càmm fàll yu mag. mën a jël ay junni junni tonnes. loolu du affaire nguur. affaire kan la. ah affaire secteur privé la. am secteur privé ma tooñati leen bu xaw a yaanaa ni mais yéen leen si dugalut. non secteur privé kenn du ko dugal ci leen moo ci dugal boppam fekk mu gis opportunité bi ñun li ñu waroon def xam la mooy nguur mooy yombalale li ñuy wax environnement des affaires. Hmm. maanaam jumtukaay yi ngay soxla. loi ak règlement yi exonération maanaam jàpp jàppale yi ñu la war a jàppale boo bu bëggee investir say milliards ci benn domaine. mu bañ a nax saay. Mhm. mais est promotion boobu def ngeen. si si communication promotion boobu. mais fa loolu moo la indi. loolu moo am na foo déggee ne amul infrastructure yu doy. Mhm. communication boobu moo tax nga ñëw. mais man man ngaa dëggal ah, ah, non non non dëggal la ko man maa la ko njëkk a wax maa la ne bu doon ay dencukaay yu doy am na. ok. tey du ñu jëli benn doomu soble wala dem benn doomu pomme de terre bitim réew maa ko wax. léegi yow secteur privé ma ne la ma ne la secteur privé bi. Ah. parce que loolu business la Abdou Khad gis tey yow mii. Mhm. di wax boo amoon possibilité di am 3 ou 4 milliards. dem def euh, ñaari chambre ndax benn bi presque en moyenne milliard 5 lañ wax jëm ba 10 2 milliards. Mhm. Euh, jëm ba 2 milliards. Mhm. bu 10 000 tonnes maanaam fukki junniy tonnes. nga def ko Kayar misaal lay joxe. nga xam ne foofu ci capitalu. production pomme de terre yi la bokk. Mhm. yow mën ngaa dem mën ngaa toog fii xaw ma ban quartier nga dëkk Dakar sa kër. Mhm. di xalamlu bu ñoree ñoo am dañ koy jël nga luwe leen ko ñu dugal ko fa ñoom béykat lay wax de. Mhm. xam nga duñ ko duñ ko wanteer bu baax. dootuloo dégg kii bi jarul ñu ngi koy jaayee kilo cent franc. dootul am kon xam nga ñoom dootuñu yàkkamte jaay. yow doo ko garder ci merci kilo bu nekk wala ton bu nekk par weer nangam lañ ñu ciy fey fekk yow xamoo sax pomme de terre ci suuf lay ñore. wala ci doom si ci kaw lay meññee da nga da nga wax ju baax nga génne ci xaalis bu weex tal loolu liggéeyu secteur privé la te li ma lay wax nii nag ay la yéwén je suis sincère avec toi sama kàddu gi di xam ne li may wax lu wér la léegi nag secteur privé bu bu tànnee bâtiment yi électronique euh, bëgg lu yomb comme ni ko xale yi di waxee dina leen jox xaalis mais ñoom lim bu néew moo ciy jëriñu alors que bu dee mbay mi surga bi wax naa la moo ci njëkk a jëriñu borom tool bi njaboot gi transporteur bi exact maa ngi ñëw rek mais il faut que ma leeral la ni liggéeyu secteur privé la woon d'abord kon jubóo nañ léegi nag mu des mu des non que li tax li tax defaruñ ko woon mhm. tontu naa la liggéeyu secteur privé la waroon a doon léegi nag lu ñu nar def boobu naa la ci tontu mooy comme li mu wax nguur gi mooy comme bu jàppandal amul ci loolu déggoo kenn kuy wax ci rajo ak télé bi di tudd secteur privé pourtant liggéeyam la woon nguur gi comme nee naa comme ci yow lañ jëm yow nguur bu loolu amul kon bu doon mbirit dawal ci mbir bu doon njëgit avance ci dara pour mu am lu wàññi taraayu mbir moomu bu ko defee ñaari possibilité di ko am mooy boo boo loo ci dolli rek mbir mi mat mais diggante bi sax xëy na doo dolli ñoom bu ñu ko gisee ñoom secteur privé bi li ma gëm mooy daañ xalu ñëw dugal ci seen i milliards man loolu laa gëm loolu lañ def fi mu nekk nii soriwut gis nga programme de relance de l' économie nationale boobu ngay dégg. Mhm. nga xam ne ministre Hott. Mhm. mu ngi koy liggéey mooy relance mooy programme pour. dàbbaliwaat pour suqaliwaat pour pour pour yëkkatiwaat. koom gi nga xam ne tey normalul na mhm. ndax Covid bi. fii ak at ak genn wàll maanaam août lay commencé. ba décembre deux mille vingt et un. août deux mille vingt décembre deux mille loolu mu ñu mu ñu nga ñu nga ko ñu nga ko sabax ca biir. horticulture bi. ca ca ca ca ca xol ba ne. kon xam nga man moo tax foofu laa teg li ma la wax ne fii ak diir loolu nekk li doon boo gisee ma jox la diir boobu sax mooy xam nga dina am temps indi matériel bi. def projet bi. indi matériel bi samp ko. installation bi dina jël tuuti temps. kon su ma nee mooy nga fekk pomme ca biir laa wax kon xam nga intégré naa indi projet bi. Euh, monter financement bi. réaliser ko. kon jaajëfi nguur gi ndax loolu président de la République moo ko sant moo ne. Euh, riposte Covid. d'accord danañ euh, si ñëw post Covid dafay am solo. bu ñu toog nii rek di seetaan. kon bokk na ci. balaa yàgg incha allah comme na nar ñoo wàññi li ñuy produit ci soble ak pomme de terre ak yu ni mel te président joxe na ndigal pour que ñu taxaw dencukaay yu doy jàppal ne balaa yàgg. léeg-léeg suñu ginnaaw lan la président wax euh, ministre de l' agriculture ak ministre du commerce jëm ci secteur bi ak euh, horticole bi. non li mu leen wax mooy d' abord mooy ci mbéy mi de manière générale. Hmm. def nañ commencé d' abord ci nawet bi. Hmm. mooy lu ñu ci doon produire ci céréales. muy hmm. ceeb. muy mboq. basi suna loolu mooy céréale. ñu dàbbali ko foño ak yu ni mel. ñu ñu yokk ko bu baax. ba gox goxaan yi. loolu mhm. rawatina suñu bokk kaw gi du waa kaw gi sax ñooy rek loolu rek mais waxin la rek. Mhm. nit ñi am lu ñu xéwloo. d'accord muy benn. Mhm. moo tax mu defoon budget bi mu nekkoon quarante milliards pour campagne bi di mu yokk ci yeneen 20 milliards lu tolloo xaaju li mu li mu li mu li mu li mu naaloon. mu dolli ko ci muy 60 milliards pour nit ñi am jiw mu gën a yaatu nit ñi am engrais mu gën a yaatu nit ñi am matériel agricole nee naa ko nag incha allah yàlla dina wàll si ndax bu dee da ngay jaay baax rek. yàlla dina woon ne maa la gën a baax foog boo defee loolu taw bi dina dikk bu soobee suñu borom yàlla yàlla indi non politique ma yow xam nga ne yàlla moo ñu gën ñëpp te xool rek lay fay boo amee xolu yërmande ci sa askan jël ay matuwaay gëm naa ne incha allah yàlla dina ko fay xool euh, docteur Macoumba euh, secteur bi dafa dafa nekk secteur boo xam ne tey soo xoolee ci covid 19 bi sénégalais yu baree bari remarqué nañ ne li nga xam ne moo jëm ci mbirum euh, légum ay carottes ak supame xeet yooyu yëpp ñu toggee Sénégal yëpp nemmeeku nañ kane euh, euh, maanaam amutoon jafe-jafe ci mbirum Covid 19. bien vrai que secteur yu bëree bëri gàllankoor na moo tax secteur la boo xamante ni Sénégal yu bëri ñoo ngi koy bàyyi xel léegi nag dafa am loo xam ne mënu leen yéen di produire ndax yaa ko wax sànq wax nga fi li ngeen di produire lépp mais booy produire. mais il faut nga prévoir foo xamante ni mais fa nga koy denc yéen su ngeen amul ay infrastructure de conservation mais loolu ñaata perte Macoumba ndax mën ngaa estimer perte bi ngeen di perte su ngeen amul fu ngeen ko dugal. léegi loolu daal di tontu mais dama yeggale tontu bu mujj bi da da dama la doon wax naal bi ci mbéyum nawet bi ma soog a ñëw nag ci horticulture bi. maanaam dabbale dana ñëw si nawet bi. non maanaam dabbale. di mhm. président bëgg ñu dabbali. mbéy mi yokk production yi. dama lay leeral ni horticulture aussi ci la bokk pour lan pour d'abord autosuffisance boobu nga xam ne. ñun daanaka am nañ ko ci yenn xeetu mbéy maanaam ci quantité am nañ ko autosuffisance boobu. mu ye mu mu sax te mais bul fàtte am na lu yeneen xeetu mbéy dul def te ñun ñu koy def mooy exportation. mooy jaay bitim réew. non ñu ngi ñu ngi jóge ci cinquante six mille tonnes. dem ci cent vingt deux mille tonnes. ma ma maa ngi ñëw rek maa ngi ñëw danañ ñëw si sous région. waaw waaw daañu ñëw donc donc léegi. ndax ay Côte d'Ivoire ak lépp ñun xam nañ ñaata ngeen ah, fay yóbbu. jéem a jéem a kon. léegi waxal rek kon xam nga non da da ma laajoon. lan la président santaane agriculture. ak commerce. man agriculture laa ne. moom laa gën a xam. kon wax naa la ne ñu dàbbali yokk li ñu doon ñorle la santaane ci nawet te joxe na moyen ya ci noor nee naa la léegi programme bu relance bu économie ci naal fi ñu ci tolloogum bàyyi na xel lool horticulture pour que loolu yokk pour que exportation yokku jaay bitim réew mais aussi ñu àndale ko ay dencukaay production bi yokk mais ñu àndale ko ay dencukaay ba dootuñu jéggaani loolu kon tontu bi ci lan la président sant ñooñu loolu laal la ciy tontu commerce comme am lu ñu bokk ak ñoom mooy ñu continuer di def régulation bi. ba bu fi légumes yi ñëw rek kenn bañ a jég ñu bañanti may kenn nga jéggaani dara bitim réew ba li ñu mën a jëriñoo mbir mi ñoom it affaire dencukaay bokk na ci seen liggéey ndax kuy saytu affaire jënd ak njaayu la lejum sa sa soxla nekk na it ci bërëb liñ koy denc ba mën koo jaay kon loolu ci li ma xam daal loolu santaane boobu agriculture bokk na ko ak ak commerce ma soog a ñëw nag ci li nga wax léegi yaa ngi doon wax ci perte yi perte post récolte ci tubaab mooy li nga xam ne boo xasee ñorle diggante foofu ngay ñorlewaat di nga ko ñàkk ci li nga ñorle woon mu ngi nekk diggante vingt cinq ba trente pour cent maanaam téeméer yu ñu ñorle ñaar fukki ak juróom ba fanweer faral nañ ci ko ñàkk ci muy nëbëg. agul kaara muy yàqu déedéet. Ah. loolu waxu yàq la. Oh. kon kay ñu ñu ñu ba production nag. 40 mooy presque xaj mais yàq li muy yàq vingt cinq pour cent oh, naa ci ak yow euh, suñu sañoon mu nekk zéro pour cent moo tax ma wax la motuwaay yi nga xam ne. Mm-hmm. bi ko secteur privé jëlule te waroon koo jël. lekk ci xaalis bu weex. jëlu ko wax naa ne li nguur gi nar li nguur gi jël. comme matuwaay pour jiitu ko ca. donc loolu mooy affaire bi kon perte post récolte yooyu bari na kon moo tax ñu nar cee def xaalis bu bari. pour waa ni ñu ko nar a éviter yëpp mooy def dencukaay rek te loolu nee la nguur gi taxaw na ci. d'accord léegi euh, docteur Macoumba danañ ñëw ci. Euh, léegi na ñëw ci yéen euh, li ngeen di yóbbu bitim réew euh, di yóbbu di ko yóbbu ci ci sous-région bi ndax xam nga bitim réew buñ ko waxee en général ñu bari dañuy jàpp ne réewu tugal yi wala réewu tubaab yi mais yéen am na production bu baree bare boo xam ne yéen a ngi koy yóbbu ci sous-région bi ndax mën nga ñëw estimer wala yow mën ngaa natt ne ñaata tonne moom ngeen di yóbbu. waaw donc boo dee seet diggante 2012 ak léegi ñu ngi jóge woon ci 56 mille tonnes mooy juróom fukki junniy tonnes ak juróom benn junniy tonnes mhm. yu ñu doon jaay bitim réew ci fruits ak légumes yegg tey ci téeméeri junniy tonnes ak ñaar fukki junniy tonnes ak ñaari junniy tonnes 122 000 tonnes. dañ ko doubler presque. pratiquement. Mhm. loolu it di liggéeyu président Macky Sall ay la yéen donc. loolu boo ko xoolee bu doon téeméer la juróom benn fukki bitim réew lañ koy jaay nga dégg ci Europe maanaam mu ngi nekk diggante France. Mhm. Belgique Espagne Portugal Italie yooyu ñooy ñëw ci ëpp. Mhm. kon téeméer ñuy jaay bitim réew juróom benn fukki yi ci réewu tugal réew réewu yi lañ ko jaay. Mhm. muy lu am solo si Abdou Khadre parce loolu moo lay won ne qualité kon am nañ ko. tubaab ak ni mu séenee ne tubaab ak ni mu bàyyi xel ci jëm ci wàllu ñam tubaab ak ni mu fonkee xam mbir fi mu jógee cosaan ak fa mu jaar balaa mu koo xewloo buy jëndee ci sa réew jarul ñuy wax ne am nga qualité. léegi ñeent fukki nag 40 pour cent yi. mooy dem ci biir réewu Afrique yi. kon xam boo jëloon quarante pour cent wu 56 mille. yaa ngi tourné autour de peut-être vingt mille tonnes loolu 2012 la woon. tey boo jëlee 40 pour cent ou 122 mille yaa ngi war a nekk autour de 50 mille tonnes léeg-léeg nekk après un peu moins de 70 mille tonnes euh, euh, pour dem Europe. da nga wax ji baax. Hmm. loolu di lu di lu yéeme te lu jar a sant yàlla moo tax gis nga euh, nattu boo gis rek bu dee njàngal te cee war def nañ ko déwén bi doon xewal. loolu man ci ñu ko gëm laa bokk misaal bi exportation yi laa la koy joxe léegi fii ñu toog suñu exportation sëñ Abdou Khadre yokk na lu bari mais waroon na fee gën a yokku <coughs> bu doon ni <coughs> ay mbeef yu mel ni ay soble ak pomme de terre lañ doon jaay bitim réew lu ko waral ndax lañ ci produit dafa bari bu doon niñ ci doon jaay bitim bu doon mu ñu ko doon jaay bitim réew yokk bi exportation di yokk ci lay gën a gaaw. léegi nag contexte Covid indi na loolu. d'accord d'accord ndax ndax yeneen réew Europe ci bëri tëju nañu. Uh-huh. waaye Afrique. Mali Côte d'Ivoire Gambie gii fii la ñuy jëndee soble ak pomme de terre. Uh-huh. et cetera soxla nañu loolu. te te yóbbu fa ay dix mille tonnes vingt mille tonnes yomb na lool moo gën a gaaw nga exporter haricot vert. wala melon. wala pastèque wala mango. d'accord kon kon kon buntu ubbeeku na. Ah, ci ci dàbbale suñu exportation euh, docteur Macoumba Diouf euh, yow yaay directeur général bu horticulture léegi yow yéen euh, mbay mii nga xamante ni moom ngeen di bay dañu seetlu ne si côté ñaay bi ak ci Fuuta bi fa la ëppee léegi yéen yeneen gox yi lan moo tax mbayum dër mi wala mbayum noor mi dee fa. ak ndax tamit yéen a ngi def ay stratégie ngir niñ koy bayee ci ñaay beek niñ koy bayee Fuuta ñu koy bayee ci yeneen gox ban politique nga ci def yi en tant que directeur général. jërëjëf politique bi ma def maa ngi ko leeral ni ma tuddee horticulture mooy or vert du Sénégal maanaam or bu wert bu Sénégal mooy horticulture. ak conceptu horticulture pour tous maanaam ñëpp. am ko di ko def. loolu laa indaale man. loo si def loo si def. du bari. lu ah, bare bare bare. wax ci dara loo si def. li ma ci njëkk def mooy tolluwaayu horticulture tey ginnaaw yàlla ci suñu loxo yu ñàkk solo yi ci confiance président de la république ak gungeem ak jàppaleem ci lañ ko yóbbu fi ñu ko yóbbu. Mm. ba yow miy toog xam nga ne. la woon. waaw mais wandiku na maa ngi ñëw rek maa ngi rek beneen bi mooy. daf naa xam war nga xam li ñuy wax micro jardin. micro jardin mooy mbéyum légume ci taabal léegi yow sëñ Abdou Khadre ma suuf dootul lay pour nga def micro bu dee sa kër mënut a ñàkk bu amul espace mag it am na couloir taabal yi nga def ko fa wala sa balcon wala ci place su maire yi place publique bi nga xam ne du du xoojal kenn ndax du tilim dafay rafet sa naana sa salade sa carotte sa betterave yëpp mën nga ko béy. ci table non docteur non dama lay leeral. non docteur microjardinage microjardinage mm, mm, mm. développé nañ ko bu baax. laaj ma loolu de. waaw waaw non ci horticulture la bokk moo tax moo tax moo tax ma ne la. dina bokk mais bokkut ak li ma ah, maa ngi ñëw si bokk na. da ma ne loolu ci def ba mu yaatu. waaw damaa ma moo tax. ma déparé ci ëttu kër gi. pour wax la li ma def pour que ki ci këram. nga xam ne lay mënoon na ko yomb ne aw suuf kon mënu maa def micro jardin. mais la def na def la naa ko horticulture te Abdou Khadre loolu laa yaa gën a xam ne ma lay wax. kon kon kooku wax bàyyiwul keneen léegi ma soog a ñëw rek ci gox yañ ko doon def. foofu lañ dabbali mbir yi. ba ñu jógee ci neuf cent cinq mille tonnes. fruits ak légumes yëpp muy téeméeri junniy tonnes ak juróomi junniy ton ci deux mille. booboo la ñu ci doon ñorale lépp ko ci un million six cent vingt quatre mille tonnes. ci 2018 loolu moom laa def ci production horticole waaye jeexagul yow su ma ne moom laa tutelle laa bëgg a wax xam nga horticulture maa direction bi. Mhm. mais du man rek maa ci yëngu. Mhm. lu ñu dégloo Prodac. Mhm. dégloo Anida. dégloo Pasa lu ma kaf. dégloo projet bu ñuy wax Pader. maa ngi lim ay projet de léegi ñu bëgg a bari. yooyu ñuy ci biir réew mi si Abdou Khadre. di def ay ferme ferm mooy. tool yooyu nga xam ne dañ ko def ngedd grillagé ko def fa forage def fa lépp bërëbu dëkkukaayu jeunes yi def ko daal ba muy ñu ñuy produire mbéy mu xarañ di ko exporté mais loolu mu ngi siiw ci néew na commune booy dugg tey Abdou Khadre te fekk ko fa ay ferme mais kon ñu ngi développé horticulture ci feneen fu dul ah euh, ñaay ak Valais ak Tamba ba ñu doon defee banaan léegi horticulture ñu ngi ko def fépp ndax loolu mooy gis-gisu président de mu indi politique ay programme yoo xam ne ñoo war a jëmmal loolu waaw d'accord gis naa ci matériel boo doon boo doon présenté bu leen président Macky Sall jox mais léegi matériel boobu moom horticulture ndax matériel boobu jaroon na ko non bu dee am na lu manqué à part ay dencukaay ci horticulture matériel bu mel noonu la xam nga li tax tey mën nga jël agro business ku amee milliard jënd ay tracteur yu mag machine yu mag a mag comme ni nga koy gisee ci télé bi am bërëb bu mu nekk di ko liggéey loolu amul problème mais béykat yu ndaw yi bu doon téeméer la yu ñor la ci réew mi juróom-ñeent fukki yi ñoom ñoo koy ñoo koy béy mais ñooñu bëri na ci ñoo xam ne su ma ko waxoon doo ko gëm ñu ngi encore di gor pomme de terre di ko jëmbat mais loolu xewi na am na ay matériels yu ñuy wax planteuse maanaam machine boo xam ne comme ni ngay jiyee gerte. machine boobu noonu lay jëlee doomu pomme bi lu mu noonu lu mu xaañ suuf si dugal ko ci suul ko machine bi koy wax planteuse li ma bëgg wax foofu mooy me loolu bokk na ci li manqué woon. ci horticulture maanaam mécanisation bi. amoon nag gaa mais dafa néewoon. dafa néewoon par rapport ak ni ñu ko doon defalee mbéyum nawet. Mm. léegi président nee na loolu. du du yoon léegi daf koy corriger. horticulture est-ce que am na emploi. déet dama naan moom rek donc kese. bu ñu emploi ci mbéy waxuma ci leneen nag emploi maanaam am xëy liggéey mbéy comme métier horticole dong rek kese la moo ko de waxuma ne moo ko fi ëppale lu leer laa la waxal li man a wax dama ne moom rek la xam nga tax métier si Abdou Khadre mooy yëngu bi nga xam ne li ëpp ci sa jot moom ngay def loolu mooy métier la ci gën a néew moom ngay noppalu mu tudd congé wala lu noonu. waaw léegi ñi nekk si est-ce bari nañ. mais non seulement bari nañ. waaye ñi ma gën a bëgg ñu bari ñu ngi bari léegi mooy ñan. Hmm. mooy ñu koy def nawet te bu nawet wàccee ñu enchaîné waaye bay nawet dundee ko douse mois xam nga ne loolu téewul benn réew. maa la ko wax kon li ko téye mooy. Hmm. bay nawet ceeb mboq. basi suuna ak lëjum ndax lëjum a ngi am nawet. Hmm. bu ñu ko béyloon du am. te bu noor jotee. bu noor bu tàng beeg noor bu sedd bi yépp juróom-ñetti weer yooyu yëpp nga béy ko légume. d'accord ndax ñoo ëpp njarte. Hmm. moo ëpp rendement légume. day def ñaar fukki tonne ak juróom bu fan fanweeri tonne ci benn hectare. Hmm. gerte mënoo ci am benn tonne. Hmm. ci ectare donc kon xam nga yemul njëgu légume moo gën baax njëgu gerte. d'accord te légume da nga koy béy waxtu wu ne ci at mi kon kay mooy métier mi kon bu ñu ñëwee métier ci mbéy rek moo tax xale yi gisoo ñuy def ay toolu gerte. d' accord ci ferme yi léegi euh, suñu dernière question ci ci loolu mooy yow docteur Macoumba Diouf yow jàpp nga ne def nga bilan bu am solo te nawet bii tamit yaa ngi xaar production boo xam ne euh, président ak Sénégal yëpp danañ sam satisfaction. jàpp waaw tout à fait loolu man moom laa yaakaar non seulement moom laay ñaan mais am naa ci yaakaar bu rëy fi ma ko teg mooy ci mëtuwaay yi foofu laa ko teg. kan moo lay jox matukaay. président moo jox matukaay yokk. kon président fulaal na secteur bi. mais da nga naan ba benn secteur ci sama gis-gis man. gënul am solo ci président de la république secteur mbay amul fi ma ko tegit mooy ba mu toog ak léegi lim ci dugal. d'accord léegi léegi jërëjëf docteur léegi ñu ñëw ci euh, yow. Euh, ministre Moussa Baldé mooy ministre de l' agriculture. waaw léegi euh, lu soxal wàllum semence yeeg euh, joxe bi nga xamante ni joxe nañ ko ak qualité semence bi ndax yow man nga si nekk comme témoin kane semence bi am na qualité ñi si war a jot jot nañ ci. bon man loolu. mënuma koo tontoo ni nga ko waxee. ndax benn yoruma ko. ànduma di ci liggéey ak ka ko yor muy directeur de l' agriculture. boo ci buggee am lu leer dangay ngay toog ak moom. d'accord nga laaj ko ko waaye waaye ma terminer rek waaye mën naa cee def seede. ci fa ma féete ndax man maire laa kon commune yi ñu yóbbu jiw sama commune ci la bokk muy Latmingué jiw boo fa ñëw mat na maanaam lañ waxoon opérateur ya ne leen yóbbu leen ko fa xëy na li mu doon man la nag mhm. xaw ma xëy na laa wax. loolu indi nañ ko ba mat te jiwoo baax na. d' accord jërëjëf léegi docteur Macoumba yow yaay euh, lan Laan Mbengue ci euh, deux mille rek ndax waxtu jot na jamonoy coronavirus xam nga gox yu baree baree bari maire yi boo xoolee en général ñoo nekkoon euh, coordonnateur ci lu jëm ci mbirum xeex mbas mi yow lan nga fa def en tant que maire moo tax moo xam dimbale askan wi la ci jël ay yu bari wala dara. bon dinaa détaillé tuuti mais dama la waroon wax rek lépp rek émission bi yem fi surtout laaj fi émission bi jeexee fi mu ko laajee baaxul ndax xëjul ci émission sax bay xëj ci catu émission mais li ma la ciy wax rek mooy ci tegle nii laa liggéeyee man bi président njëkkee wax ca njëlbeen ñu naan xale yi nekk si dinañ ñibbi seeg war nañoo ñibbi si étudiants yi waruñu leen indi man laa sol sama tànk daal dem dem ci sensibilisation ndax ba ma xamee ne ndekete garabu corona mooy ñàkk koo am boobu laa jóg def sensibilisation sama fas yu ma war a yëg pour mu yóbbu ma ci aaru gi réew mi ak sama askan war a aaru ma dem def sama sensibilisation bu tar ci naka dajale borom dëkk yi wax ak ñoom def déclaration waxuma interview de damay tegal waa ji tegal enregistrement bi may wax mu enregistré bu pare nga dem teg ko ci rajo ba rajo yi ci Kaolack yàpp def ay weer foo ubbee suba sa rajo bi ci bëccëg ngoon sama kàddu ngee ngay. d'accord léegi loo jàppale askan wi beneen bi. jeexul de ma def caravane. jël samay jeunes ndax man samay jeunes étudiants yi bañ ñu tëj nañ université tey. ci ëllëg laa def ay bus. ñu ñëw fekk leen fii roñ leen ñoom ñëpp indi leen la nag. bu mhm. nekk ñibbi sa kër donc ñoom it ñëw engagé wu ci mbir mi ma jël leen def caravane jël ay L200 ak rajo ak message bi ak ay ñu wër di wax nit ñi lan mooy danger bi nekk ci donc ba ñu yee leen bi ñu leen yee nag ma ne néew doole bi toll na foo xam ne am na ko xam ne saabu bi ngay xeeb nii sax jafe na ko ma jënd ay saabu madaar eau de javel lave-mains mooy mooy machine vraiment bu dee xool nga njël benn ba ba bi école yi di ubbiwaat nii néew néew néew war na mot douze ba quinze millions <coughs> du mu néew néew loo nga xam ne la ca ëpp bu doon téeméer la juróom-ñeent fukki man mii maa ko wut ak samay partenaire yi ma ci jàppale li tam wax loolu mooy xam nga temps yu fekkul budget yi lu mel noonu amoon ca ndax kenn naalu ko woon fekkul it président may ñu lim ñu may mooy xoolaat leen seen budget fonctionnement soppali ko dugal ko ci wàllu dund ak ci wàllu wàllu produit donc loolu def naa ko jeexul ma ñëw jël euh, soble comme ci horticulture laa nekk heure boobu neewoon nga mbas mi laalu ñu mbas mi kay laaloon nañu kay neel président moo ñu fat moo jël un milliard fonds revolving jox ko commerçant yi mu jaar ci DER ñu jënd di doon yàqu mu jëlaat un milliard jënd ko pour 65000 ménages nar koo joxe ci fan yi ci dund daloon nañu kat président daf ñoo faj kon man ma jël euh, defe naa su ma jumul 40 tonnes soble sama commune juróomi junniy njël ñoo fa ne ak ñetti téeméeri njël ak fukk ak juróom njël lu ne dugal naa fa diggante juróom benn kilo soble ba fukki kilo te benn laa wax dégg nga jël daara yi jox leen ceeb ku nekk 100 kilos ceeb diw saabu eau de javel pour que xale yi bañ a dem yelwaani parewuma ma dugg ci handicapé yi def lu ni mel bi école di ubbi waat amul benn thermoflash benn mask benn toqu madaar benn doomu saabu bu jóge ci nguur gi ñëw dugg sama commune. yaa ko maa def lépp. d' accord jërëjëf. Euh, docteur Macoumba jeex na donc euh, euh, élèves yi ku nekk ñetti masque laa ko jox. enseignants yi ku nekk ñeenti masque professeurs yi xam administration école yi ku nekk ñeenti masque thermoflash yi école bu am classe bu xale yi war a dugg. Mhm. ma def fa thermoflash buntu école classe bu ne. ma def fa ma daar mains mhm. mais mais nag ba defoo ko yëfu yëfu politique ñi ñi ànd ak yow laan mbéy ngay kese joxoo leen ñëpp nga yemale woon. déet tontu naa la. su ma nee juróomi junniy njël moo ah, am sama commune ma jox leen ñoom ñëpp jërëjëf te euh, pareegu ma parce que xam nga juróomi junniy njël yooyu ñaari junni yi ak ñetti téeméer ak fukk ak ñeent yi la président jox uh-huh. kon xam nga des na ñaari junniy njël ak juróomi téeméer ak lu teg uh-huh. man dinaa ci tànnaat junniy njël uh-huh. jox leen ku nekk cinquante kilo ceeb jërëjëf euh, docteur Macoumba Diouf yow yaay nekk euh, maire bu Latmingué euh, nekk directeur général bu culture waxtu yu jot na ngi lay sant di la gërëm. man maa lay gërëm sëñ Abdou Khad di rafetlu émission bi bu baax a baax a baax di sant ak gërëm ñi ko <coughs> déglu ci di jéglu nag ci bu dee am na lu safaanu ci wax ji wax yomb na waaye déglu moo jafe te nit ñi seen dog jot la ñu dog. pour toog di déglu suñu kàddu yu ñàkk solo yi la ca ñàkk solo ñun la ñu ngi ciy jégalu la ca am solo bu dee am na suñu borom la. jërëjëf jërë ngeen jëf suñu gërëm ñëpp di sant ñëpp. jërëjëf euh, docteur Macoumba Diouf mbokk yi ngeen àndoon ak Abdou Khadre Seck seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h Adama Diallo mu nekkoon ci wàllu technique bi ñu leen di jox dig daje samedi bi di ñëw jërë ngeen jëf.